ñi amoon fi ndaje si lii président bi lancé woon muy dialogue nationale bi ñuy wax euh, dialogue bi nag dëgg la sax suñ koy wax li ñuy wax li ñuy dégg li ñuy gën a dégg mooy bi ñuy wax dialogue politique bi dialogue politique bi nag benn commission la si dialogue national bi ndax dem na am na yeneen sept huit commission ñun nag ñuy présider commission bi ñuy wax économie sociale maanaam commission boobu moo yore mbirum mbirum àddina si mbirum koom-koom bi mbirum liggéeykat yi mbirum euh, àddina bi li ñuy wax ndax seer na tey seerul loolu yëpp moo ngi si biir commission bi jog si commission boobu am li ñuy wax acteur culturels yi ñi nga xam ne dañuy yëngu si affaire sport ñi nga xam ne dañuy yëngu si culture ñuy aar lépp affaire u religion moo ngi si biir affaire u coutume moo ngi si biir président aline Badara Bèye moo ngi ko doon rappelé léegi maanaam commission bi yaatu la dafa yaatu ba nga xam ne macha allah dañ ko mujj a ñin dog ak ñeent sous commission li ñuy wax ñin fii sous commission bu nekk rek commission boppam la donc loolu ñii nga xam ne ñoom président Mbagnick yore li ñuy wax affaire koom-koom bi ñoom Nicole Gakou yore wàllum jeunesse bi wàllum santé bi wàllum koom wàllum euh, productivité yore si lu bëri si loolu euh, Saliou Sarr bi ñuy wax secteur productif maanaam béykat yi euh, sàmmkat yi banque banquekat yi ñi nekk banque ñi nekk assurance industrie bi primaire secondaire yëpp ñu koy traité ak aline Badara Bèye li ma waxoon sànq mbirum culture aada yeeg religion beeg sport beeg yëpp ñu koy traité si biir commission bi loolu la ñu daje woon tey di organiser liggéey boobu parce que président de la république dafa lancer dialogue bi nekkat dafa bëgg a fii ak le 23 juin ñu mun delloo rapport yi comme ñun dañuy engagé woon liggéey boo xam ne ñëpp a si bokkoon amul koo xam ne dégluwuñu la nga wax sa xalaat muy muy marchand ambulant yi. muy secteur informel muy secteur formel muy napp nappkat béykat ñëpp ku nekk ñëw nga sportif yi homme culture yi littérature ñëpp daal écrivain ñëpp ci société bi ñoom Nicole ñoom travailleur rek yëpp jeunesse bi ñu ne kat léegi comme ñëpp déglu nañ leen woon te am na dëggante dëgg la am na lu xew si diggante si délai bi aussi bëriwul maanaam nañu jël. commission bi jël semaine bi li ñuy wax réactualiser mu am na ñoo xam ne ñi bees ñu ñëw si dialogue bi ñi won leen liggéey bi ñu jot a def ñi laaj leen ñoom it soon xalaat ñi dugal son xalaat pour que ñu terminer suñu rapport jéggal ko président Moustapha Niass mu jéggal ko moom président euh, Macky Sall donc euh, loolu mooy euh, loolu moo doon si suñu ndaje tey ñi nuyu ñëpp di leen di gërëm yenn aussi yéen journalistes yi di leen di bon parce que presse aussi moo ngi si biir commission Alioune Badara Beye Bamba Kassé moo nekk assesseur bi représentant la presse dans le cadre de ce dialogue moo fi nekkoon ñu kon moo fi continuer kon boog ñoo ngi leen di nuyu leen di gërëm ngoon xamal ni gars yi bi dialogue bi du politique kese politique bi benn si commission yi la euh, fii li ñuy waxtaane mooy naka rek la ñuy loo xam ne suñ si ñuy xalaat suñ si jaaree def ko dina gën a ba indi cohésion sociale am na cohésion suñu biir bon et puis ak lii di xew yëpp aujourd'hui gën na tax ni war nañu bàyyi xel ci loolu